asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ñu ñu yégal waxtaan bi nga xam na ni ba léegi ci coronavirus la ñu nekke coronavirus nag dañu war a xam dafa indi musiba dafa nekk léegi musiba ci itali musiba ci àddina bi yëpp la ba léegi dañu war a xam santé bi dafa baax ci ñun loolu moom jarul nga déplacé fu nga dund walla sa nga dem beneen kër beneen kër li ñu ko xamee rek mu ñu jógee si loolu dañu war a xam nag ku respecté les lois yi mun naa am foofu musiba bu eh, mun naa am foofu alamaan alamaan bu diis la waaw loolu nag dañ ko war xam mooy loolu moo tàkk léegi jëluñu nit yi pour pour euh, yóbbu ci camp yi pour ay ay day laaj ni protection internationale loolu moo tàkk ndax jamono bu ngu ñuy indi nit yi ñëw ci camp yi loolu moom baaxul buñ jógee si loolu un ku bëgg laaj ci protection loolu moom dangaa war a xam instant bu nekkee nii yëpp bureau yi mag yëpp bureau yi li mu dem nga laajte protection maanaam castura commission yëpp day tëj léegi nii instant yi bu nekkee nii ba léegi nag boo buggee laaj ci protection danga war a dem si commissariat a war a dem si commissaire police bi nga laajte mu arrêté la ma résitilé sa tour bi sa kii nga ñëw nga xaar ko ñu ñu nekk si def rek nga xaar sa kër bu ñu la woowee nga dem jugement tribunal la jugement commission la ñu ngi ko xamee rek ba léegi pour bugguñu feebar bi mu dem si àdduna bi yëpp ñu yëpp ñu am ko bureau yi foofu commission tamit dafa toj dafa toj léegi yëpp day toj bal kii urgence bu mu jàllee rek feebar bi du bu mu jàllee rek après dañ ko ubbi day la waxal nit yi tey commission mu ngi liggéey mu ngi ubbi because eh, coronavirus bi dafa jekk buñ dëggee si loolu nga ñëw nga xaar boo demee commission nga am négatif nga am positif nga am positif boo amee positif nag danga war war a xaar ba feebar bi jàllu feebar bu mu jàllee nag mun naa dem kostura nga laajte ak sa papier yi wala sa nga laajte sa papier yi feebar bu mu jàllee because instant yi dafa tëj bu ne nag négatif nga am loolu moom dafa nekk over grave nga woon def dem rek si nga dem mun naa dem recours mun na mun na ko def roko bi mu mun na ko def boo defee loolu nga warul danga war a xam nag danga war a vérifier sa sa tur ya sa santé yi sa date naissance yi yëpp ndax mu ngi nekk correct balaa nga jóge ci commission waaw boo boo gisee foofu erreur rek dañ ko war a signaler bu ñu jógee ci loolu bu ñu jógee si loolu nit ñi boo buggee def recours maanaam deuxième tour bi mun na ko def commission danga nga war xam rek instant nii dañu am problème dañu am problème dund yi sax dañ ko am because ndax coronavirus bi dafa sonal nit yi si jamono bi nii dañ ko war xaan mu da nga am contact sa mun na contact sa avocat bi mun na ko yónni email boo amee papier wala document dañ ko bugg a yónni sa avocat bi dañ ko bugg a yónni wala nga dem si bureau bi nga yónni foofu sa document yi tey nag loolu moo nekkoon waxtaan bi ñu balante wasalaam